mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak télé TFM di leen dalal seen xibaaru juróom-ñaari waxtu yi xibaar yi bokk na ci assemblée nationale tey jile la fa woowoon député yi ngir taxawal commission penc ci la toll waaye nag ci ndaje ma ñi nga xamante ni opposition baak non aligné yi gedd ndaje moomee daal di ñaawlu yëf yaak yeexte gi ci ñu dem ba jàpp ne sax ñàkk weeg da caa am lu jëm ci commission yi nag ni ñu ko waxee amal nañu travaux yi seen biir waaye plénière euh, bokk na ci accident bu conteneur moo fa daal di saaraan ci l'école privée faat fa ndaw lu amoon fanweer ci at yëf yi daal di tegaat ci table ji rek wax ji jëm ci camion ak seen doxalin euh, maire bu diwaan nga sax bu parcelle la nga fa woon euh, di sàkku rek ak yoonal ci kon camion yeeg doxin wi ci ndakaaru wàllu wér-gu-yaram ak jàngoro yi roñoog ñi ko amee euh, li nga xamante ne mooy ngëneel gu ci nguur ak Sénégal dugal ci wallu maye gi li ko dalee benn fan ci weer wi ba léegi ñu nga ca maye googee muy gratuité ci public gi mu des waxtaan yi ngir privé waaye ñi nga xamante ne ñooy association bi jàngoro ji ne yëf yi nag mënoon na fee gën a neex ndax jàpp nañ ne euh, benn ñii di néphrologue yi bari wuñu Sénégal ñiy fay jàngoro yi roño euh, fukk ak ñaar rek ci ñaari téeméer ak juróom fukk yu ko amee ba ca des mooy wàllu ñàkkum jumtukaay baccalauréat première session Sénégal ëllëg la ci réew mi talaata ji fu mel ni lycée Lamine Gueye nag ñu ngi ci waajal gi ngir réglage yu mujj jëm ci examen boobe tàggat yaram dinañ ci ànd ak Papis Diaw mbokk yi nataal Istanbul lañ leen di xamale tey xalifa Khalifa Ababacar jaxate demaloon fa TFM di leen xamale diwaan goo xamante ni gu méngoog jamono la doon it bu wéeru ci aadaam ràññu ko ci koom waaye ci wàllu jënd ak njaay yi assemblée nationale tey la woon ndaje ma jëm ci càncuk fukk ak benn commission ya mujjuta am plénière di lu nu yaatal ci ñëpp ñoom député yi li ko waral di ak yeexte ci yëf ya ñi nga xamante ñooy opposition bi nag ak ñi euh, bootuwul ci benn kuréel non inscrit yi ñoom dañoo mudd faf dal di gedd ndaje mi ndax jàpp rek ne yeexte gi benn du lu jaadu ba ca topp dem nañ ba jàpp sax ne ak ñàkk a wég da ca lalu Chérif Dia nga fa woon ak Mar député yi nekk ci opposition bi xaar lu yàgg gisuñ seen naataangoo yi nekk ci nguur gi ba tax na ñu xàddi jël dogal ne dañuy ñibbi gedd googu nag ki ko jiite mooy ki fi nekkoon premier ministre di Souleymane Ndéné Ndiaye. man de maa ngi ñibbi sama kër ndax dañ ma convoqué woon 10 heures ma xaar ba 2 heures 30 ñëwuñu ma xam ne ñi euh, li leen peuple bi euh, fale xamuñu ko. voilà ñoom député yi nag naqarlu lool taxawaay bi nga xamante ni seen i naataangoo nekk ci majorité présidentielle bi def. ndax ñoom dañoo nekk ci ay commission te palais te plénière bi ñu ko jàppoon ci fukki waxtu. retard dafa ëpp du def dégg dayo su ba tey ñu ngi fi. yaa a une une un membre de bokk yaakaar naa te te un groupe parlementaire géttu parlementaire xam lu gétt y a de xar là-dedans y a de mouton là-dedans y a de chèvre là-dedans y a la là ñun dañoo wuy si dix heures dix heures ba quinze heures vingt kon cinq heures de temps boo ko taxawee bërëb. foofa caaxaan a fa nekk waaye liggéey amatu fa ñu dañ foogoon ni yi fi amoon démb ak barki ñu naan rupture dafa war a am yooyu jeex na mais nekkete yoo cafouillage mooy ñàkk xam li ngay liggéey mooy jannaxe mooy jaaxle mooy liggéey boo xam ne xama fu muy commencé fu muy jeexee moo fi am léegi ay xibaar nag ñoom député yi nga xamante ni ñoo nekk ci majorité bi dañoo déggoowut ci ñu war a jiite yooyu commission ñoom député yi nekk ci minorité parlementaire bi jàpp ni président assemblée nationale moom moo waroon a wax ci lii. su ñu ñëwul sax mu yónnee est-ce que moom nee mooy président député yëpp su wootee 10 heures la la politesse ni ko euh, tubaab de waxee la la politesse euh, c'est c'est c'est euh, la ponctualité c'est la politesse des rois. législature bees mi nag biñ ko taxawal léegi-léegi ayu bis rek la wante jafe-jafe tàmbale naa commencé ndax ñi nekk ci kujje gi naru ñoo bal dara ñi nga xamante ni ñoo nekk ci majorité bi président assemblée nationale nag Moustapha Niass ci weneen wàll tontu euh, Modou jaañ Fada mi jàpp ne ñàkk def ak déclaration politique générale bu premier ministre Abdoul mbay dafa jalgati yoonam réew mi dub jalgati rax ca dolli nag mu leeral moom jiital assemblée nationale ne déclaration bi euh, premier ministre Abdoul mbay dina ko def ci ndorteelu weeru septembre lay doon dana koy dégloog suñuy naatango RFM Ibrahima Benjamin Diagne. en fonction des urgences mi ngi aju ci dossier yu urgent yi ak dossier yi nga xam ne munta xaar ñu def ci session extraordinaire ci ndoxteel weeru septembre bi dinañu amal ab session extraordinaire buñ ci jugee ñeenti fan gannaaw bi ñu defaat ko ngir mën a waajal euh, li nga xamante ne ji moo di euh, comi fukk ak benn commission technique yi ñu war a teg euh, fi mu nekk ni sax député yi ñu ngi ci salle bi ci suuf ngir di xool ana kon nan la ñuy taxawalee lii di commission interne yi ci biir assemblée nationale xam nga journaliste bu Sénégal war a def déclaration politique générale loolu des ko war a waxtaane déggoo ko mu dox diggam ak moom PM ak njiitu réew mi eh, ci boo ko defee nag njiitu réew mi comme ni ngeen ko xamee mu convoqué assemblée nationale ci ab décret eh, président bi moom it consulté groupe yi ak bureau yi nga xam ne ñoo nekk ci assemblée boo ko defee ñu soog taxawal dat ngir eh, premier ministre mën a ñëw def déclaration politique générale am. le savez, et le président de l'Assemblée nationale qui, l'avis de l'Assemblée consulte les groupes et le bureau de l'Assemblée. njiitu assemblée nationale euh, Moustapha Niass euh, ci tekki gi Mamadou Mouhamed Ndiaye euh, ci jamonoy ndaje mi nga xamante ni woolu nañu ko tey assemblée nag doon taxawal commission yi penc ma ñi nga xamante ñooy association bi taxaw ngir rek taxawu ñeel ñi amee jàngoroy xel malade mental ci Sénégal daal di fa defab toogaanu ñaxtu sitin bi lanu ci jublu mooy fexe ba ndawi réew mi xam lanu nekkee ñoom malade mental yi ak taxawu gi ci war jàpp nañ ñoom assam ne gi ci mbedd mi rawatina ñeel ñi tàggoog seen seen xel danger la ci wàllu kaaraange askan wi sax dañu ciy déglu Ansoumana Dione mi jiite goge kuréel Assam ci micro Chérif Dia caméra Mar Dieng. bi nag nee na sonn na ci ay ñu amee feebaru xel la si mbedd mi kon ñoom député yi nañ jël seen responsabilité mieux que ñun parce que ñun kenn faluñu ñun. pôle région yi ma ne dof yi ñu ngi ba buntu palais Macky bu génnee dof lay njëkk a dof yaa ay citoyen dañuy dellu Parcelles Assainies bi que yëf yu kéemtaan moo fa daal di am camion bu yaboon ab conteneur saaraan fa dugg ci l'école privée euh, daldi di faat ndaw lu tolloon ci fanweer ci ay at euh, muy nag jéey joo xamante ni tiisoo nanu ko Adia Talla nga foo nag yaay Diallo. kamiyon ba ci biiru classe ci école xelu mag muy lu yéeme benn nit ñàkk ci bàkkanam laata oto bii di yegg ci kanamu tabax bii mu daaneel. oto bi mu ngi jógee côté bale di ñëw bu dee camion bi mais am na beneen oto bu doon ñëw jàkkaaroo moom oto bu ñuul la léegi benn chauffeur mi ci bi oto bi moo ne ko arrière mu arrière di ñëw léegi ñu jékki-jékki tuuti am na benn gardien ni fi gis ko muy cëpp benn euh, ki ko wax ne ko arrière benn emprunté la gis ko muy cëpp mun ko amul frein mun ko déedéet mu ni daw leen ak oto bi amul frein moom sax jot naa jël benn xeer sànni ko ci pour bari ko mais oto bi daf koo sànniwaat daa sànniwaat xeer bi léegi mu daw ñun ñëpp ñun ñun ñu après ci lañ topp ci ginnaaw tam naan dawlee amul frein dawlee mais fii plus que la oto bi dafa jékki-jékki gën a gaaw mënuñu koo gisati ñun jiitu nañu oto bi jiitu nañu kanam à l'instant que ñuy jàdd fekk nañ ko mu daal dugg ci miir bi bi ñu ñëwee xool noonu lañ gis wàcc ginnaaw bi sapeur pompier yi yóbbee néew bi ci morgue oog yi la ki doon dawal oto bi feeñ ak ay gaañu gaañu. tabax bi tamit biñ ko xaymaa yàqu-yàqu yi am na solo. ñu yegg si fii. neuf heures quarante ñu commencé suñu opération a neuf heures quarante donc ci biir opération yooyu la ñu ràññee benn xale bu góor bu ci ñàkk bakkanam ñu yóbbu ko hôpital euh, bu Grand Yoff am na kenn koo xamee ne moo doon dawal oto bi mu ngi dugg ci benn taxi boo xamee ne mu ngi nekk presque à six ci fi nga xamee ne foofu la accident bi xewee am na ay gaañu gaañu ci loxo ak ci kanam bi noonu lañu def ci saasi oo benn ambulance mu jël ko yóbbu ko. accident bi xew ci unité 15 dafa dal di yokku ci yu bari ci xewoon te camion yee ko waraloon muy fàttali rekk fagaru ak kaaraange ci yoon wi. fagaru googi addiya moo warloon am ndaje tey jii la diggante ministre bi ñu dénk wàllu transport Mor Ngom ak transporteurs yi moom jëwriñ ji sàkku ci ñoom ñu dem nag di farataal contrôle technique gi ndax wata gi xaaw nga xool wér yaram gi frein ya lii di volant ba wàllu lumière laata kon nga koy teg ci tali bi moytu jéey ji euh, loole kon la leen euh, daal di yeggee moom jëwriñ ji nu dénk wàllu infrastructure ak transport euh, dañu ci ànd ak Birama Sow ne la Ibou Cissé ak Sayer Insa Diop accident yu bëri am ci kaw tali bi tiital na askan wi loolee tax ba jëwrin ji ñu dénk infrastructure ak transport taxaw temm ngir ñu saytuwaat melokaanu oto yi. réduction accident yi wàññi accident yi ak visite technique yi dañoo lëkkaloo li leen lëkkale mooy lenn oto bu amul ay frein maanaam war a taxaw oto war a jàdd ndijoor tourner volant fekku fa dara defe naa loolu aussi. lu ñu war a moytu la leneen li nga xam ne ni moo ciy mujj ci njett yooyu mooy guddi oto booy daw te amul ay lumière. ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi nag ànd nañ ci gis-gisu ministre bi. ci wàññi accident yi ñun ñoo ko gën a wax kon accident yi bu yokkoo suñ matériel day yàqu beneen bi ci topp sant technique bi ni ñu ko waxee d'accord nañ ci parce que ni ñu ko waxee ñun loolu dañ ko doon saytu ak suñuy matériel. ci ñi nga xam ne ñoom la ñu yëpp pour ñu mën a am jàmm ci tali bi. ki nga xam ne mooy moor Ngom nee na daje bii ak automobiliste yi nekk na loo xam ne dina tax ñu mën a moytu problème yi ni mel. jàpp naa ne man bu ma nekkee fii ñoom ñu nekk fële il faut ñu bokk loo xam ne ni ñoo ko bëgg parce que li ñu bëgg ñun ñëpp mooy transport mucc ayib mucc ayib gi mooy lan sénégalais bi bu bëggee dem fenn dëkk ak dëkk walla gox ak gox mu jóg. am oto bu ko fa mën a yóbbu mu dem ci jàmm ak salaam ñibbisi ci jàmm ak salaam loolu ku ci nekk da nga ciy am loo xam ne ni euh, sa waar woo ciy bay ci daje boobulee nag waxtaanee nañ fa camion bi nga xam ne moo rey xale bi dëkk Parcelles Assainies am fanweeri at ministre bi nag fas yéene na jël ay dogal ba nga xam ne accident yu mel nii dootu fi am ñu waxtaane wàllu wér-gu-yaram jàngoro yu roñoog dogal bi jëm ci maye gi ñeel paj mi nguur ak Sénégal jógtee ko benn fan ci weer weeg léegi première juillet ña nga ca gratuité ci l'hôpital yi wekk ci nguur ak Sénégal professeur Boucar Diouf mi nu dénk wàllu jàngoro yu roñoo ca ministère de la santé jiite it wàllu néphrologie la Dantec ki ko xamle association ñiy xeex jàngoro ji ne naam lu rafet la waaye mënoon na fee gën a neex ndax yëf ya du paje mu doy du wàllu jumtukaay ci hôpital yi Aminata Mbaxe Sow la nu ci àndal ak Yaay Diallo ay weer a ngi nii ginnaaw bi njiitu réew mi diggee woon ni lii di jalis dañ koy yomb la ñi nga xam ne dañoo amee feebaru roño waaye boobu ba tey ñenn ci ñoom dine mesure boobu nag gisaguñ ci dara. ba tey jii ñuy wax yéen nit ñi ñu ngi fay seen jalis soo demee ci ci privé bi bon peut-être que au niveau de l'hôpital Dantec mun nañu wax ne xëy na foofu jalis bi c'est gratuit te foofu nombre bi ñu dafa xaw a limité tandis que soo demee ci privé bi ba léegi nit mais gratuité bi nga xam ne moom la wax te ñun ñu bëgg ko sentir gis ci suñu bopp mën ci dimbali suñu malade vraiment amagul ñu ngi demander aux autorités ñu def le tout pour ko gratuité boobu mu effectif partout au Sénégal ba mu nit ñi vraiment mun def seen dialyse correctement. ñi amee feebaru roño fii ci Sénégal ne bés bu yàlla sàkk dañuy génne seen poche xaalis ngir mën a def dialyse. fa fi ñu toll nii wax ji defe naa moo ci gën a bëri parce que yeneen centre yi fi am yëpp bu ci mel ni Asofal foofu 60 000 la ñuy fay ba tey. lu mel ni Américaire bon am nay effort yoo xam ne mairie Dakar ak euh, le maire xalifa Sall def na ko ci mooy que ne ay taux quarante mille la ñuy fay am na ay cas yuy fay dix mille donc man mi yàlla dogal na ma ci bénéficier wu parce que agent municipal la également mais à part cela Dantec la ñu mën a njort ne. peut-être am na gratuité et foofu li muy jël bëriwul. bu weesoo seeraayu faju bi ñi amee feebaru roñu di ñaawlu li nga xam ni mooy médecin yi faj seen feebar bëriwuñ ci Sénégal waaye tamit machine yi ñuy jëfandikoo daanaka dafa néew. bu weesoo gratuité yi dañu war a yokk générateur yi dañu war a yokk personnel bi parce que bu ñu naan deux cent cinquante personnes la ñuy hémodialyser waaye am na douze mille personnes yoo xam ne feebar bi dal na leen nga xam ne loolu métti na. parce que ci personnel bi sax ñi ngi naan douze néphrologue moo am Sénégal te juróom-benn yi rek ñoo ci actif. ñi amee feebaru roño di wóor nguur gi mu gën leen jàppale ndax traitement bi dafa cher. ñuy waajal examen baccalauréat Sénégal ëllëg la ci talaata ji fu ci mel ni lycée lamin Gueye wàccaay yi matuwaay yëpp kilifa daara ja jël ko foofee nag ci Lamine Gueye junni ci candidat daal nuy doon ñett ci jury fas ko yéene rek gàddu ci wàllu examen bi ni ñu ko waxee di baccalauréat gi ëllëg lay doon Fatimata Ba ma nga fa woon ak Ibou siisee ab tekk-tekkaaral la ñu nemmeeku ca lycée Lamine Gueye ay waxtu rek moo des ngir ñu tàmbalee pàcc bu njëkk baccalauréat 2012 fii nag ndongo yi ñu ngi wéyal seeni révision instant moom mënuñu wax pare nañu parce que un élève boo xamante ne kii année scolaire yow war nga def kii neuf mois mais tu mais tu n'as fait mois quatre mois kon élève boobu mënuñu wax na pare na quoi. parce que dans la mesure où defuñu année bu normale. donc mënuñoo pare par rapport aux autres qui sont dans le privé personnellement musuma sonné nii quoi si sama àdduna sama jàng dinañ affronter parce que amuñu choix am nañ choix sax parce que euh, wax nañ ñu choisir et tout mais bon dinañ ko affronter parce que ñun ñu jël responsabilité boobu donc c'est notre euh, suñu devoir la quoi dañ ko war a def kilifa yaa ngi def seen i kéemtalaay kattan ngir rek yëf yi jaar yoon proviseur bi ak président jury yi di ci waxtaan. déparé nañ depuis que ñu annoncé ne bac bi euh, le 17 la euh, parce que dañuy defar noonu suñu dañuy bale d'abord école bi ba set euh, defar taabal yi ak ak chaise yi nga xam ñoo war a doy war na doy pour professeurs yi numéroté leen nommé les secrétaires de jury. te loolu yëpp dinañ ko avant même tey. incha allah dinañ mun a commencer parce que visité nañ saali yi euh, bon am na yu sew yoo xam ne rek war nañ ko mën a yeggali te yooyu dina mun a sotti fii ak ngoon incha allah. toll nañu ci ay junni junni ndongo yi ut seeni diplôme universitaire bu njëkk ñoom ndongo yooyu ak waajur yi di am yaakaar ni grève yi amoon ci at mi du feeñ ci résultat final bi. ñu leen di ñaan. Usain Bolt di euh, ab kéemaan ci wàllu athlétisme ñu nag dellusiwaat ci réew mi wax ci wàllu basket rawatina euh, final coupe du Sénégal ci wàllu góor ñi douane ak ASFA douane jël ndam li ci seen diggante ak euh, ASFA 55 54 mu nekkoon final bu ñu disputé ñu nag dellusiwaat ci na mu tëddee ànd si ak Abdou Aziz Ndiaye. AS Douane dem na ba jeex démb fële ca Marius Ndiaye ñii di douanier yi jël nag seen juróom-ñeenteelu coupe ginnaaw seen ndam li ci kaw ASFA nekkoon nag match bu metti amul bàyyi diggante ñaari équipe yi waaye équipe bii di Douane moo mujj jël ndam li ci 55 à 54. match bu metti si début bi ba si fin bi dara yombul woon muy si côté physique bi technique tactique ASFA daf ñu créer énormément de problème jëluma woon euh, sama ay temps yu bëri bi ma demee ba si fin bi bi ma xamee ne war naa mën jël ay temps mort si laa ko jël daal di rectifier waat gars yi euh, daal di leen ne lii ak lii ak lii ngeen def heureusement ñu def ko nu ñu doxal nu ñu ko war a defee ñu daal di gagné marché bi. nañu respecte suñuy adversaire parce que ñoom ñu doxal nañu ils ont am nañu benn présence joué nañu bu baax c'est vrai que ñu it joué nañu bu baax mais benn couple woon équipe bi ko mérité tey moom lañ ko jox. te ñaari équipe yi ñoo tolloo doole su ngeen gisee ni mu demee sur un point donc ku si nekk mënoon nga gagné si le tir était passé mënoon nañoo gagné. ci bés bi basket sénégalais bi teral na kii di Mamadou Ndoye ak Fatoumata jongo ginnaaw ba ñu leen tabbee roi ak reine. yëgse naa ba fii tabb nañ ma buur ci basket bi fii Sénégal daanaka xam nga xam nga saison bi dafa guddoon. dafa guddoon te dafa metti euh, neexul woon. taxale nañ début bi metti woon na yëgse nañ ba fii yàlla ji def na gagné nañ championnat bi mu tegaat ci titre roi bi bon daal dama ko ci sant quoi sant yàlla bu baax quoi sant yàlla. waaw kontaan naa trop tey ma nekk reine du basketball Sénégal ma ciy profité pour euh, remercier samay coéquipiers yi nga xamante ne ñoom ñoo ma jàppale ba tey lii am sans ñoom man du ma dem. kon donc maa ngi leen di félicité bu baax di leen remercier bu baax a baax a baax yaakaar tasul ci ñu teewee bés bi tëj championnat national basket daje boobu xumboon na lool yu ci mel ni artistes yi wane nañ ci seen bopp ñu leen di jox dig daje dëwoon ci beneen édition. dañuy descendre ci wàllu roi ak reen boobu di Mamadou Ndoye ak euh, ki nga xamante ni mooy Fatoumata Diango euh, dañu nag dellusi ci euh, ni nga xamante ni noonu lañu leen tabbee di ci déglu ki nga xamante ni moom mooy Waly Ndiaye nekk kenn ci responsable ci fédération sénégalaise bu basket di secretaire général ba moom ci micro ki nga xamante ni moom mooy ba léegi abdul Aziz Ndiaye. roi ak reine ni ñu koy tànnee ci biir saison bi la bu ñu demee ba toll ci playoff yi entraîneur yëpp dañuy bàyyi bët ci xale yi. bu ñu demee ba play fi di bëgg a jeex ñu ne entraîneur bu nekk seetal yan ñaar nga yaakaar ne war nañ mën nekk roi ci entraîneur góor yi ak ñan ñaar nga xam ne war nañ mën nekk reine ci jigéen ñi buñ ko defee ñu xool buñ joxee liste bi ñu xool nag li nga xam ne mooy charte yi ñu tëral xale bi war na wane yar waru mos a dem commission discipline war nekk ko xam ne joué na euh, genn wàllu ëpp genn wàllu match yi yooyu yëpp bu amee ba pare ba ñu respecté ko ñu soog a nag nag léegi nag yenn critères yoo xam ne envoyé ko club yi comme ça club bu nekk léegi daal di nag tànn foofu nag léegi nag roi ak reine Ibrahima Mbengue moom bi ñu ko defee deuxième la jël mooy bu mooy joueur douane bi moo nekk tey meilleur basketteur mu daaw moo doon roi mais Mamadou Ndoye 30 la la a fa nekkoon nominé ñaar la ñu woon club yi bu kii joxee kii 3 points am ñaar fukk am euh, ñaar donc yoon bi la ñu topp wàllu yaay doon ñu wax naka la ñuy def pour tab roi ak ren euh, ñeexteelu saison bu nekk fii ci réew mi ci wàllu football Jeanne euh, d'Arc bu Dakar euh, doon amal assemblée générale am démb ci ay bés bi fas yéene nag suqali ko waat ndax Jeanne xam nañ ne dafa suux nu nag wax ne jàpp nañu ne seen comité directeur taxawal nañ ko fanweeri membre la ak ñett nu nag dellusiwaat ak Seydou Nourou Ba dellusiwaat ci li nga xamante ni noonu la ñu taxawalee comité directeur boobule bu Jeanne d'Arc bu Dakar. lii du assemblée euh, euh, générale extraordinaire mais assemblée générale consensuelle donc ordinaire la euh, dañu ñu nit ni commité directeur fanweeri nit ak ñett la ñuy def 33 membres moom la ñu tëral te bi ñu koy tëral dañu moytu wote parce que boo nekkee ci jafe-jafe boo wotee am na ku gañe boo amee ku gañe it am na ku perte bu ñu bëggee tabax loo xam ne. loxo ñëpp la ñu bëgg ku ci ne jàpp ci mais duñu bàyyi kenn gannaaw waxantuma ak moom bon nit ñi nag euh, euh, xam nga li ma ko tuddee ci tubaab waxuma ne ay groupe la wante ay sensibilité la wante ñëpp defar Jeanne gis nañu ne loolu lañu bëgg muñ nekk benn bëgg yëkkati Jeanne Jeanne d'Arc bu Dakar ci lañu yem nag wax seen assemblée générale boobule ne tàngoon euh, si ay jamono ndax euh, ñi ko séq amoon na sax daanaka ay laale euh, jëm rek xëy na ci li nga xamante ni moom mooy xër bi nu xër ci équipe bi nuy wax vieille bi bi gën a màgget fii ci réew mi ñu koy wax la vieille dame maanaam Jeanne d'Arc bu Dakar ñu koy ñaan Assane mu dellusiwaat ci scène bi. Euh, ci terme xëy na yu gën a rafet ak yu gën a dal xel. ah jërëjëf Papis foog naa ne xeex yi bu dakkul pour euh, ñu del si du yomb ndax mbir yi dañ koy waxtaanee kenn du ko xeexoo. kenn du euh, Papis moom boolu ceeb rek a ko jaral fitna guddi mel na ko may du football bi dañuy nag jàll ak yéen laata ñu tàggoo mbokk yi xamele leen ak diwaan am solo lool Istanbul Pierre da Silva foofu foogu ma fa la njaago yi fekk baax de Istanbul Khalifa Diakhaté la ñu fa yebaloon foofee ci Turquie mooy ñaareelu diwaanu dëkk ba fukk ak juróomi millions yi doomu aadama waaye dëkk ba nag la tax mu yéeme mooy daa wéeru ci démbam kanam waaye ak jamono eh, xereñ loolu ci wàllu caada koom eh, naka noonu xalifa jaxate minaare yi di xoos asamaan moo lay wan doole lislaam ci dëkk bi muy ndono bu bàyyeekoo ci empire ottoman taxawal Istanbul ki seen péyum réew niki ki ñi leen jiitu ca dëkk ba di romain yi ak byzantin yi ottoman yi lu toll ci juróom ñaari téeméeri at ñu nga ca réew ma loolee waral du ñàkk lim bu takku ba fa am ci ay jumaak jàkk ñu xayma ci ñetti junne yi ci wet ga ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukki jàngu ak fanweer ak juróom-ñetti synagogue jàngu yahut yi Istanbul ab taaram fu mu sosoo bokk na ci du ñàkk diine yi nga xam ni teew nañu fa ku ca nekk ba nga ñëwee dal di fay bàyyi sa manin sa rëdd basilique Hagia sofia Sophia mu sell ñu tabax ko ci juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari at ginnaaw Yeesu Christ mu nekk église ci jamonoy romain yi lu toll si juróom-ñeenti téeméeri at ak fukk ak juróom-ñaar nekk juma ci jamonoy ottoman yi lu toll si ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukki ak juróom-ñaar niki tey jii tabaxub sultan Mehmed boobuy nekk ab musée seede ci taarix. cosaan googu du ñàkk moo waral déggoo bi am ci ña fa nekk te bokkuñu diine donte lislaam moo fa ëpp doole muy dëkk bu yaatu bu daal nay nekk ci ñaari continent ci Europe ak ci Asie ba ñu ko soseek nëgën ni mu toll ci ñaari junni ak juróomi téeméeri at mu làq lu bari ci cosaanu lislaam otuwaayu tarix ak démb bu Topkap yi jamonoy Ottoman yi mu nekkoon palais sultan ya jullit bu fa dugg sa yaram dina daw yoon yonent yàlla Musaa mu xare woon géej ga kaala ak yonent yàlla Ibrahima jaasi xalif yu njëkk ya niki noonu bu yonent bi salallaahu alayhi wa du ngeen ko gis ndax kenn mënu faa portale kenn mënu faa filmer niki alxuraan ju Seyna usmaan bind si ab loxoom téere baa nga fa ak yeneen ak yeneen yu ca 16e siècle sultan ba fa nekkoon daal di koy indilu mu bàyyeekoo ca Màkka. ku fa jaar dina des ba faaw ci sam xel nit ki bulu mosque jàkk ju bëla ju Istanbul jafa gën a mag lu toll si fukki junni doomi aadama mën nañ faa jullindoo jàkk ju bleu ndax nañu ko décorer la ci ëpp couleur boobu la sultan ahmed moo ko tabax ci 1516 daal di cay def lu toll si juróom benn minaret moom mooy fukk ak ñeenteelu sultan bu empire ottoman di juróom benneel bi noonu la ko màndargaale ginnaaw bi ñu nangu istanbul def ko seen peyum réew pom bi mooy juróom-benneel bi gën a gudd ci àdduna bi muy euh, pom Bosphorus géej gi mu jéggi di géejug Bosphore daal di tàggale dëkk ba ci ñaari continent yi lu toll ci fukk ak juróomi million doomu aadama di fa yeewoo Bosphorus Bridge am guddaayu junni ak juróomi téeméeri mètre gi juróom fukki mètre ak ñeent Istanbul nag ni tey mooy péyum réew ma ci wàllu koom-koom ci wàllu aada cosaan ci wàllu njënd ak njaay taaram di yéem ku ma mën a doon ak foo mën a bàyyeekoo ngir seet si digg àdduna bi foofee ko làq Xalifa Jaxate ñu koy gërëm mbokk yi doon ñu defal nataalu Istanbul diwaan ca euh, Turquie gannaaw ngan gu mu fa amaloon Xalifa Jaxate ñu koy gërëm mu nekkoon mbokk yi xibaar yi RFM ñu leen di gërëm bu baax euh, ci teewlu gi euh, TFM ngeen baal ma ci kanam tuuti incha allah xam naa ndogu gi ngir sekkee nag njawen yi ñu leen di encouragé li des ëppul fukki minute 20 heures Mamadou Ibra Kane mu ndogoo ba noppi dina fi teew ngir seen xibaar ci français bi yoon ñu fanaan jàmm